alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi maa ngi tàmbalee di leen nuyu yéen ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen euh, tàmbalee ci kilifa diine yi euh, responsable association islamique ak ñi fi ñëw ñëpp rawatina ñi fi ñëwal seen jëmm bopp ndax lislaam moo leen ko jaral tàmbalee sama wax oustaz Makhtar Sarr dafa wax léegi imam Kanté joxe wàlle version may nuyu tamit Ababacar Mbuub ak Adama Mbuub ñëw nañ ba jumaa point e ñu waxtaan fa ba ñu euh, faram-fàcceel ma li ñu jublu ak mboroom yépp nga xam ni ñu ngi ci ànd sàmm jikko yi nga xam ne képp koo xam ni yaa ngi ci biir lislaam membre nga foofu de principe de principe mu des nag xëy na jot beeg yu ni mel te loolu sax am naa ci xalaat dina ko euh, joxe waale ndax amul kenn ku bokk ci benn déggin ci lislaam bu mën a doon boo xam ne am na yoo xam ni am nga sañ-sañu wax ne duma ci yëngatu wala duma ko défendre kon ñun ñëpp membre lañ de principe ci kuréel bi su ko defee may dalal xelu jullit yëpp euh, ci ne fi ma tegoon sama tànk ci xeex Euh, mbiru LGBT nga xam ne mbiru góor jigéen benn pàcc la ci benn pàcc la ci programme bu global la euh, mbiru góor jigéen mooy li ñuy wax góor buy see góor mais ci biir ell bi jigéen buy sëy jigéen bisexuel bi góor buy see góor ak jigéen jigéen buy sëy jigéen ak góor mooy bisexuel mooy bee bi transgenre bi loolu moom li ci nekk yëpp kenn xamul lu mu toll ay sous groupe la kon LGBT ma tënkal leen tomb boobu mooy que ni c'est un programme mondial de déviance morale bu ñu bëgg a imposer ci àdduna bi yëpp bi maanaa xawmu luut li ñu doon jëfandikoo bible tuddee ko Sodome et Gomorrhe dañ ko bëgg a te tey am nañu possibilité bi bëgg ko teg ci yenn façon xam-xam bëgg ko teg ci yenn koom bëgg ko teg ci ay kuréel ak ay jumtukaay ak ay outils euh, yoo xam ne mën na leen may ñu planéta ñu ñu def ko si le plan mondiale mu des nag réewu jullit yi ak jullit yi ñooy seen problème parce que ñooñu lu tax ñuy seen problème parce que jullit yi ñoo fi desee gëm ne dañu war a attewoo diine l'islam diine bi ñu yàlla wàcceel ne dañ ko war a attewoo jullit yi ñoo des di ko gëm donte woon mën nañoo sàggane yenn mbir loolu du ci dara du ci dara même koo xam ne jullit nga doon naan sàngara doon sàggane say waajur doon caaxaan yàlla nañ ci yàlla musal lu mel ni bu jógee nekkaatal jullit topp ci xeex boobu loolu far na say bakkaar kon képp koo xam ne jullit nga rek war nga xam la jar nga jóg taxaw ak la nga xam ni sa njuumte bopp la mën a doon kon loolu lañ ci euh, bàyyi xel parce que léeg-léeg nga dégg ay saay-saay di wax naan waaw yéen a ngi nii di bàkkaar yenn saa ngay gis koo xam ne def na lii def na lii ba pare ngeen jóg di xeex ñoo xam ne da ngeen hypocrite du dëgg jullit yi ils pas parfaits waaye lu nekk war nga xam lu ci war a doon sa taxawaay nga def ko sa kéem kattan li ci des nga jéggalu borom bi subhanahu wa taala maa ngi teg sama tànk su ma ko tegoon parce que ñan ñoo teggi seen tànk ñoom la du man ñan seen tànk ñoom la te xam nañ lu tax ñu teggi seen tànk ndax lu mel nii lu ko ëpp un million de fois moo naroon ñëw tribunal moo tax ñu teggi seen tànk dama la ci jox benn anecdote dafa am benn ku ma xamanteel point E ni jeune bu jàmbaar man bokk ma ci ñi pessimiste dama optimiste ci liggéeyu l'islam parce que boo seetee léegi jeune cadre yi nga xam ne dañu bàyyi xel l'islam alquran ak sunna kenn xamul nu mu toll on n'a pas le droit d'être optimiste euh, pessimiste xale yu góor yi ak xale yu jigéen ñi nekk dëgg haut cadre actuellement dans le pays te bëgg l'islam fi mu nekk nii kenn xamul nu mu toll am na ci xalaat yu ma ci am il faut ñu dajale doole boobu mais anecdote bi may joxe mooy kenn ci jeune cadre yooyu nekk point E daf ma woo mu ne ma imaam am naa problème te yaa ma ko indil man ak benn xarit ma ne ko nu mu demee mu ne ma dafa am sama xarit bu ma woo avocat la yu bëri dañ constitué de façon gratuite ñoo ma wool seen bopp ne ma bokk nañ ci sa groupe avocat ba fi ma toll nii mosuma génnee benn dërëm wala dara ci affaire avocat avocat yi ñoo ma woo am na koo xam ni Kaolack la ma woowee wax ndànk téléphone ne ma maa ngi audience nii su ma paree rek woo la bi mu paree woo ma ne ma maa ngi sa biir groupe avocat bi mu dellusee see timis Dakar woo ma ne ma euh, woo naa Moussa Sarr woo naa ma soxna kan ak ñeneen pour dugg ci xeex bi du sa xeex ñun ñëpp la. ki nga xam ne dafa ma woo dafa ne ma dafa ne ma sama sama benn xarit avocat la yaayam moo ko woo nee na yaayam ba mu ko woowee xar kanam bi mu gis ci yaay ji dafa jaaxle mu foog ne problème de famille bu compliqué la yaay ji ne ko dama la soxla ñëwal ñëwal mu ñëw mu ne ko toogal mu toog mu ne ko affaire imam Kanté bi may dégg ak affaire Wally Seck bi ak nangam ak nee ma ne ko non naa koy dégg ci presse bi rek mais suivre ma ko de près xaw ma lu mu lu xew dégg naa daal imam Kanté waa ji neen daf koy def citation et cetera ah euh, yaa ji ne ko ah man sama yoon nekk ci loolu yëpp xam nga lu ma la bëgg mu ne ah nga dem constitué wu comme avocat ci imam te lu mu laaj ci lu mu la war a fay nga wax ma ko ma fay la lii doy na hmm. li ki des cheikh bi li mu wax léegi cheikh Haydara maayatullah xanaa nag lu ma gàtt gàtt xam-xam nag oustaz xam naa loolu xam naa ni ku teg sa tànk ci li yàlla bëgg yàlla ànd ak yow allahu akbar te lii ma teg sama tànk amul dara loo xam ni ci sama bànneexu bakkan wala ci jàppanteeg nit wala nit moo ma tax a jóg parce que bu doon loolu la ma def leneen parce que bu dee àddina ñoom dañ cee yor lu bari bu dee koom dañ cee yor lu bari bu dee ndomba tànk dañ cee yor lu bari kon bu fekkoon dama bëgg àddina wala bëgg leneen kon du ma yëkkati lii nga xam ne boo ko yëkkatee ñoom tam mu am lu ñu yëkkati kon euh, lii xew bi nga xamee ni euh, invité nañ ma ci benn média ci suba si la am benn intuition benn yëg-yëg bu ma am ci ne am na kor wor bu nar a am ñi suivre émission bi ma def petit déj Walf booru 9h ci ngoon gi la gaa def conférence de presse bi ci suba si ma new délégué wu kenn muy wax ci sama tur demandé wu ma médiation excusé wu ma parce que su ma defee loolu war naa histoire l'islam ci Sénégal war naa mag ñi li ñu fi jàngale war naa taxawaay bi ma am ba ñëpp jàppale ma je suis imam Kanté je suis ma def loolu ci ngoon gi mu am ñu jaar ci suuf dem def li ñuy def mais loolu dafa am lu muy feeñal mooy dañ ko war a jàngat bu baax parce que lu tax jeune artiste boobu mu am ñu ko wax lu gën a garaaw fopp li ma wax te tam ma leeral leen mosuma ko tuumaal ne loolu la dama ne jëfandikukaay la ci ñoo ñu yore alal bëgg yàq jikko yi feneen fi ma ne c'est un acteur de la propagande LGBT mosuma ko wax ni yow ci bopp loolu nga kon lu tax ma wax lu mel noonu mu def ma citation directe mu am ñeneen ci ay moroomam ñoo xam ne dañ ko wax directement loolu lu gën a garaaw te yóbbuwu leen lu tax parce que léegi imam yi commencé engagé wu di bëgg a xettali askan bi ci turu lislaam ñooñu la ñu bañ ñu wax allahu akbar allahu akbar mag ñi liñ fi jàngalee mënta nax saay foog mu am ay Maxtaar Sarr foog mu am Ababacar Mbuub ak ñeneen ñu taxaw ci héritage yu daara taxaw ne nii la war a demee warta demee nii ñun li nga xam ne côté mouvement islamique gën a miin ñun tam foog ñu taxaw daal ne nii la war a demee warta demee nii kon loolu moom mooy euh, li nga xam ni moo ñu taxa a euh, euh, jóg beneen bi ma jeexale foofu wax ni mbiru jikko yi ak mbiru borom ñaari tur ak gi ci topp am na ku ko wax du feebar bi ci boppam symptôme yi la suñu bañee juum mën nañ def lu mel nii ay yoon yoon ba pare ñoom li ñu bëgg jàll parce que ñoom minorité lañ mais am nañ ñu ñuy jàllale seen i mbir te ñun ñu nekk majorité musulmane ba pare chaque jour ñu topp fi ñun di kaas naan lu tax lii am ci dëkk bi xam nga lu tax parce que dañu defagul liggéey liggéey boobu laa bëgg léegi ñu def ko nag dañu defagul liggéey bi mooy lan mooy nañu jël affaire jikko bi mu nekk prétexte pour ñu xoolaat réew mi ci lan la tegu ci lan la tegu lu tax teguwul ci lislaam te lislaam nekk ci cosaan am fi doole nit ñi gëm ko kon li may proposé mooy bu ñu paree ci lu mel nii au lieu que ñuy xaar keneen génn def benn caay-caay ñu ñëwaat def rassemblement nañu jëm sous la houlette de ànd euh, sàmm jikko yi ñu def liggéey bi ay dossier jël ko par thème bu nekk ñu xootal ko dénk ko ñi ko gën a mën a xam boole intellectuel yi europhone yi euh, ñu jàng mbiru tubaab arabophone yi ñu jox leen dossier ñu travaille sur le plan technique sur le plan juridique côté yëpp ñu xool ko génne dossier bu dëgër dem ci kilifa diine yi def ci ay waxtaan ci gox yëpp dajale ko mu am benn plan d'action bu mucc ayib bu leer nañ ñu porter plan d'action boobu mu jaral ñu suñu bakkan boobaa léegi lépp changé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi